waaye eh, xëy na du doon doon lu lu lu war a am kon daal na nañu xam ne daal ah, ñu ngi soññiwaat taalibe yëpp rek bu nu mën a ne ah, nu xam ni waxtaan woowu def nañ ko ba am nañ ci ak déggoo ah, ñi soññiwaat it ñu dëkk ci dëkk bi ñëpp nag bët bu nu féetee xam ne liggéey bii nga xam ne moom la sëñ Tuubaa dénk si Rafaal faaw danañ ko def kon nag ñi ngi soññi ñëpp nga xam ne ñoom lañu seqal dëkk bi bokk ñoom dëkk bi Euh, ñu góorgóorlu bu baax si sàmmante war ma ji nga xam ne moom la sëñ Tuubaa bëgg ndax euh, njabootu Cheikh Ibra Fall gii kat li leen sëriñ bi digal parce que ñi suba gu ne ñu xëy nekk kër daal moom ñun duñu say dugg kenn waxut kenn nga dugg sa lu dul nii circonstance bu war a tax ñu dugg fa circonstance yooyu nag bari na seetoo kër gëstu ko ba xam ne la lay tere ma nga sa biir te ña fa nekk ña nga sa tey gëstu nañ ko ba xam ko loola ñoom danañ ko taal bi wax ak kilifa ya bu fekkee nit nit def na ak ñaawteef te maa ko dugg si kër ba ne moo jublu sa ak làqutu danañ dem waxtaan ak kilifa ya waaye dee su dugg ci kër naan dañuy wër lu nuy aaye loolu duñ ko def ciblé kër rek dugg naan dañuy wër fii lu wala dañuy wër ku fii def nangam loolu moom bokku si li ñuy def